neewoon naa ko président ñëpp jóg nañu topp la est-ce que boo toogee nguur gi fi nekkoon doo def ni nguur gi doon def mu ne ma lan ma ne ko nguur gi fi nekkoon dañu baisser le rideau de fer entre le président et son peuple mu ne ma déedéet ma ne ko kon nag président ñu ngi sa gannaaw foo ñu woo ñu wuyu la président jóg na mi ngi liggéey am na ci it nit ñi nga xam ne ak président ñoom ñoo defarandoo parti bi ñooñu muy les actionnaires du parti actionnaire parti yooyu nag man boo gisee ma gën a ñëw Sénégal pour ñëw fi def campagne en 2012 Aboulo mi ngi nekk en Allemagne ak Mamadou Talla c'est un frère c'est un ami moom it ñoom ñoo gënoon yokk ma ñëw fii ñu wax ko président président ni mën naa ñëw du ma fàtte it na Dia kon nag euh, loolu yëpp bu ñu fi ñëwee Thiès début yooyu instant yooyu metti woon na trop mais dugg nañu dans les zones ruraux campagne nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen temps yooyu moyen amul mais dañuy jël sunu alalu bopp di ci def dëkk yi nekk fii yëpp amul benn dëkk buñ ci demul te ñi fi nekkoon démb ak bërki démb ak tey yëpp man laa boole yemale képp ku xas ñëw nga rallier nga nekk APR. man instant boobu amul kii moo jiitu amul kii moo nekk gannaaw ñëpp benn lañ ndax ñun ñëpp kenn nit la ñu topp muy le président Macky Sall waaw. est-ce que nga ñëwaat ci am nañ ci biir euh, nguuru Macky Sall. waaw doon xeex pour euh, Macky jot hmm. kilifa yooyu ku ci mel ni abuloo abuloo moom kooku moom du ma du ma wax dara daal parce que am na looy waxee dañuy wax am na foofar mais muy Aboulo muy Mamadou tàll muy Seydou Guèye Cissé Lo Mbay Ndiaye madame Badiane ak euh, Racine la ñii ak euh, waa Racine la ñii ak Thierno Alsane Sall Augustin Tine Abdou Mbow ñii ak bu Ndiégène ñii ci parti bi lañ nekkoon démb te tey ñëwul eh. kon nag bu fekkentee ne ñu ngi wax dara pour affaire parti bi man ñii tuddewuma leen ci parti bi la ñu bokk de ñii dama ne APR buñ ko coté woon au bourse ñii ci actionnaire yu gën a rëy la ñuy bokk kenn kuñ ci dindi bourse bi day daanu te bu boobaa it APR day daanu te kenn bëggul loolu dañu bëgg APR jëm kanam président ki jëm kanam. Euh, yéen ngeen bitim réew di liggéeyal euh, parti APR ana bitim réew. moom yaakaar naa ni ñu mel foofu ak ni APR mel fii du benn. parce que foofu ak nu mu mënta demee tendance yi bëriwul ak nu mu mënta demee kenn moo ñu jiitu rek ñu ci des ñu topp si te même keroog bu ngeen xoolee ci leeral le ministre de la formation professionnelle ñëwoon na def na tournée en France tournée bi mu fa def def nañu meeting Mantes-la-Jolie meeting bañ fa def ba ñëpp gis nañu meeting bi ni mu mel ak ni mu demee meeting bi nga xam ne bu réussir la te waa Mantes muy góor ak jigéen di mag ndaw ma Mamadou Talla li mu fa doon def démb ak bërki démb fàttewul kenn kenn muy mag ak ndaw kenn la fàttewul ki mu xamoon démb ak bërki démb li mu nekk ministre taxul mu changé changé wun kanamam changé wun comportement bu ñëwee jigéen ñi góor ñi ñëpp ku nekk ku mu gis ku mu war a wax goro daf lay wax goro ku mu war a wax ma daf lay wax ma kon nag jàmm rek la séq ak nit ñi def nañu suñu meeting ba mu normal te APR bi nekk foofu en France man li ma fa gis ak bi nekk fii dafa wuute parce que fii tendance yi dafa bëri këréel yi dafa bëri ñun ñëpp dañu jóg la président Macky Sall lañ topp bu ñu toppee président Macky ñu gis président Macky ni mu mel c'est un homme bi nga xam ni mosuma ko gis da ci président Sénégal yi du xaste du saaga buñ ko waxee lu ñaaw du tontu moom fi mu nekk rek la nekk muy liggéey kon nag nit ñi topp ci gannaawam war nañu am royukaay ci président Macky Sall ñu liggéey ndax ku mu ci woo mu jox la dara mu teg la dara daf la wax na nga liggéeyal peuple bi te peuple bi ñuy liggéeyal demain les élections de 2017 fekkente ne liggéeyal nañu peuple bi dinañ ko xam bu ñu liggéeyalulee peuple bi itam dinañ ko xam l'essentiel li may wax rek ku ci toog na nga xam sa place nga xam ni président Macky jox na la cër bu mot sëkk bu ëllëgee nga bañ ko rusloo li nga war a def nga def ko ana ban gis-gis nga gis ci affaire ginnaw bi nga tukkee dem ñëwaat fii ci biir euh, Sénégal raw rawatina Thiès bi ñu waa man Thiès li ma fi gis gis naa tendance yeeg clan yi dañu bëri te bu doon sama sago loolu du am bu doon sama sago ndax démb bi mu mettee booba toogaguñu permanence affaire bi mu nekkee fii wetu hôpital régional docteur Augustin Tine Thierno alsan Sall Abdou Mbaw ñun ñëpp fa lañ doon toog am na un jour président romb foofu cortège mu ngi jëm Touba ñu ne ma Aïssata sa frère mi ngi jàll ñu ngi koy woo jotuñu ko wook ma woo président ma ne ko président foo nekk mu ne ma si yoon lañ nekk ni ma ne ko ah ñun de ñu ngi fii Thiès ñu ngi liggéey ñu ngi rassemblé gaañ mu ne ah lool c'est bien liggéey bu rafet ngeen di def kon nag niñ ko doon defee démb te boobu toogaguñu nekk guñu au pouvoir waroon nañu continuer liggéey boobu ñu xejal nit ñi néew gi doole yi it ñu dimbali leen nu ñu leen di dimbalee wax ñu ñu jël l'argent de l'état di ko partagé mais ay projet am na jigéen ñaa ngi fi góor ñaa ngi fi la jeunesse est la ay projet mën nañu monter ay petite entreprise def ay microfinance comme yi ñuy def fii kooku Diop di def Moustapha Diop yi muy def yi yooyu yëpp mën nañ ko def mais bu buñ koy def itam nañ ko def ci ay base yu wóor base yu wóor mooy nan ñu teg ko ci loxo nit ñi nga xam ne nit ñu wóor lañu ñu koy mën a partager jigéen ñi jigéen ñi di liggéey xale yi di liggéey fekk ëllëg bu leen président laajee compte yu ñu def yi fekk bu boobaa du ñu sëgg ndax man képp ki nga xam ne Cees nga dëkk bëgg lu ma la gàcc bëgg lu ma la nga sëgg bëgg lu ma la dara te dama bëgg bu président Macky Sall ñëwee Cees ak responsable yi nekk Cees bu ñu ñëwee Cees bu ñu leen laajee lu ñu liggéey Cees fekk dinañ taxaw wax président seen baat yu gudd du ñu sëgg ñu ne président lii la ñu liggéey Cees Euh, ki nga xam ne mooy euh, docteur Cheikh Kanté nekk directeur général bu port. Mm. Euh, day ñëw di faral di jël loxoom di ko def ci Thiès. Mm. yow ban gis ñëw naa fi vacance may ñibbi am benn affaire bu ma gisoon maa ngi nekk Madrid ma gis affaire bi ci Sengo ma liir ka ba pare ma envoyé ko message félicitation ndax li mu jóg di liggéey. nekk Baye Fallou président loolu daf ma neex si moom te nga woo ko itam xamu la xamaanu la nga envoyé ko message rek mu tontu la loolu itam lu jafe la parce que nit ki booy liggéeyal président da nga war a disponible guddi nga disponible bëccëg suba ak ngoon fu ñu la woo xam nañ ci liggéey lañ nekk liggéey ñu nekk yi dafa sore xam nañ ci institution lañ nekk loolu yëpp dafa metti mais kuñ ci woo ñu bàyyi la message walla ñu envoyé la texto boo paree nga mën a dellu gannaaw nga xool nit ñi lay woo nga xool information yi ñu lay jox wala li ñu lay wax ci dëkk ba ñu nekk wala réew ma ñu nekk nga mën garder loolu nga xam ne carrément yow mi président lim la fi teg lu la ñor la te président ku la ñor la ku respecté président nga waaw. Eh, ki nga xamante ne tey eh, dañuy jox kàddu gi eh, am Diop Amsatou nekk sa politique APR fii ci biir Thiès soxna Amsatou coow li bëri na ci yenn jigéen ñi ci yenn wax yi ci biir APR Thiès. ngeen nekk fii nekk ay responsable di liggéey yéen euh, lan li muy bari bari ñun ñuy liggéey nekk euh, euh, femme APR Thiès ñun ànd nañu bokk ku mel ne. Diop maa ngi nuyu femme Benno yi nekk cees yépp bàyyiwuma kenn ñoo ngi ci sunu jàmm ñun nag. képp kuy wax euh, madame Badiane dara ñun concerné wuñu ñun dañoo ànd bokk topp ci gannaaw madame Badiane parce que li président bëgg moom lay def bàyyiwul kenn ñëpp la sóoraale buy reeñoo ñun ñi au niveau de Thiès fu mu mën a doon ñëpp lay informer balancer leen message yi ñu déplacé wu ñëw wuyu ko ci commission yi ñu doon defit bàyyiwul kenn ñëpp dugal na leen madame Badiane mi ngi ci yoon wi président bëgg président Macky Sall yoon wi mu bëgg madam Badiane mi ngi ci. lépp lu ñuy waxal madame Badiane ñun dañ koy ñaanal mu gën a yokk liggéeyam gën ñu cee boole ñun femme Thiès yi bennoo ñu topp ci ginnaawam ànd ak moom liggéeyal Macky Sall. est-ce que jigéen ñooñu nga xam ne te wax femme Thiès yi est-ce que ñu limal euh, seen ku mel ne Nabou Ndiéguène Ramatoulaye Dem Astou njaay Ndiaye Maguette Diop ku mel ne euh, madam Dia Mambay ku mel ne Ndey Daba Mbub Awa Doucouré ku mel ne Maram Sila Yaasin Ndaw Yaasin Ndaw si Ndaw ñooñu ak ñeneen ñi ma limul ñëpp ñoo ci ginnaaw madame Badiane mhm. di liggéey ak moom ndax moom lañu am te moom yaay la ci Macky Sall lépp lu mu mën mi ngi koy def ci dooleem mag léppam bàyyiwul kenn ñoo ngi ñaan daal ñun faamu Thiès ñoo ngi ci ginnaawam di liggéey te nag ñoo ngi ñaan aussi bis bu mag Sall ñëwee fii mu fekk ñu ci loo xam ni mooy yoon wi mu bëgg ñun waa Thiès. baax na soxna si na nga def. maa ngi fi. nga présenté wu pour ñu lay seetaan. donc man maa ngi tudd Yacine Mbaye dëkk Sud-Est Sade. Yacine dañoo bëggoon nga ñëwaat tuuti parce que Thiès tey lim nañ fi ay responsable yoo xamante ne ku mel ni e, Ramatoulaye Deme Yacine Ndaw Amsatou Diop Maguette Diop ak Assou Gueye Ndiaye ak madame Dia Mambay e Gueye ak Awadou Kouré ak Ndeye Daba Mbuub ak Marème Sy mm. ñu nekk ay responsable yoo xam ne ak ñeneen ñoo xam ne tudd leen. ngeen yéen a booloo ànd di liggéey tay gis nañ ñu ni APR ñen ñu ngi joy walu moyen parce que ñu ci bari ci jigéen ñi bo leen songé ñu ne la financement wala walu liggéey wala ci walu sax ay ndomba tank yo xamné ne war ngeen ko am yow la ngay add ci lolu deug la li nga wax deug la parce que jigéeni waa Thiès sumay wax ñom ñepp lay wax andol parce que euh, bi campagne al Macky Sall sama xarit bi mo taxon ay santé mu jóge France ñu dal ci kërëm ñuy campagne al président Macky Sall ñu and ak jigéeni waa ci yépp di liggéey li jàppale président Macky Sall boobu metti na trop li nga wax dëgg la parce que jigéeni waa Thiès ñëpp a sonn bu dul dara sax koo ni sax réunion am na wala damay dem Dakar dinaa la man problème mooy moyen aw ma paas moo tax du ma dem vraiment ñu sonn trop ñu muy jigéeni waa Thiès yi man yàgg naa ci président Macky mën naa ni trop ak euh, ñoom Marème si comme ni ko waxee ay sardem ñoom Ramatoulaye Dem tout ak ñoom am satu ñun ñëpp daal vraiment jigéen waa Thiès sonn nañ trop trop trop affaire financement yi tamit am na parti bu am am na parti bu amul ñun nag li ñuy tax a jóg rek mooy toog di liggéey président de la république pour bu soobee yàlla yàlla defal ko jàmm mu am deuxième mandat ñu ngi lancé tamit appel ma euh, Marème Faye Sall pour mu lu mu ñu man a dimbalee ñun jigéen waa Thiès mu jàppale ñu bu baax a baax problème waa Thiès nag ñëpp xam nañ ko

lan ngeen di woote ginnaaw tendance yooyu te fi ngeen jëm mu nekk euh, élection présidentielle. waaw ñun dañuy wootee ñun ñëpp waa jigéen waa Thiès mu am jàmm ñun ñëpp ñu booloo takk suñu ndigg liggéey jàppale président de la république pour mu am deuxième mandat bu soobee yàlla incha allah. Euh, salaamaaleykum euh, Ramatoulaye Deme moom kenn dootu ko présenté APR Thiès waaye soxna Rama dañoo bëggoon nga ñëwaat tuuti ci li nga xam ne mooy ay xeexoo yu fi nekk waaye tamit parti bi nga xam ne mooy seen parti. jafé jafé yi ngeen di dund ak tamit euh, première dame ak euh, Mariam Badiane ñu nekk ay responsable yo xamné ne ceesuwaay bok ñu ngi leen di laaj parce que néna ñu gis ñu leen fi gis wala bu ñu leen fi gisee tamit yag na gisaguñu leen yeen euh, lan ngeen di wax ci loolu ah ma ngi leen di nuyu di leen sant di rafetal seen ni yeen ci Thiès parce que Thiès mom lu fi xew te nit ñi bëgg ko xam rek day dem Thiès info limay wax nag ci madame Badiane moy ñun duñ ko ngañ duñ ko saga duñ ko xass ndax yaay la ci ñun ndax mooy yaayu président de la république kon dañ koy gërëm di ko sant te ndombol tànk bi ko président Macky jox da koo mérité moo tax mu jox ko ko ndax Madiame Badiane mën naa ne bu génnee loxoom ci APR APR dootul doon dara te ñun sax pour prouver ko li muy wax li li ñu koy waxal fii ci Thiès ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg suñ suñu sañoon mu wàcc sur le terrain te ñoom première dame soxla nañ ko fi ndax ba Macky Sall faloo ba léegi président Macky ba tey gisuñu ko Thiès te rafetoon na tey président premier dame taxaw biir Thiès di ñu jàppale jàppale jigéenu Thiès xam ni mooy yaayu parti bi ndax bu ñu gëstoo gis ko xam ne jigéen bu takk sëram di soxnay suñu président dugg na biir Thiès di waxtaan ak euh, jigéenu APR Thiès yi daf ñuy gën a suqali te day tax lu ñu doon def benn dinañ ko def fukk xiiroowuñu nag ŋaayoowuñu xiiroowuñu ŋaayoowuñu mais nag luy jëmale président Macky sàll kanam ci loolu rek la ñuy dox instance su parti bi instance su décision parti bi bëgg nañ président Macky Sall ñun ñu gis ci suñu bopp bu baax parce que ñun fii jigéen ñi dëgg la am na jigéen ñu fi ne nomination na bu njëgeen dañ ciy kontaan parce que dañoo ànd ak moom di liggéey ci terrain ñu nominé ko mais moom dong dafa toyu waaw parce que ñëpp ne nañ lu toll ni ab région bu toll ni Thiès ab ville bu toll ni Thiès gis ñu benn nomination wu jigéen bu dul euh, ginnaaw seen bu jigéen parce que jigéen ñaa ngi fii am nañu capacité bi te mën nañu liggéey te président su jëlee benn ndombol tànk jox ko fi benn jigéen dañ ci kontaan te kontaan nañ ci ba suñu contentement yem mais bu ñu sañoon mu dolliwaat ñu parce que Thiès cadre yaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi liggéeykat yaa ngi fi lépp a ngi fi ba ci financement PSE yu Moustapha Diop yi ñëw na kontaan nañ ci mais dafa des ñëpp amuñu te APR Thiès ñëpp a liggéeyal président ba pare ñuy ñaan tamit président di ko wax ñun ñuy tournée bu muy dem dañ ciy ànd ak moom suñu propre moyen lañuy démé bu mas man mi ci ramanim sama jëmm suma Cheikh Kanté wul duma dem ci tourner président té dama ci gëreum Cheikh Kanté di félicité tourner bi président ki def fatik président da koo félicité ñun ñëpp ñu and ci kontaan madame Badiane fekk nañ ko fatik mu tok ñu dem tok ak mom waxtaan ak mom man Amsatou Diop ak Maguette job té lañ ko wax dégg nako ko ñoo ngeek moom tey ba suba ñoo mom ba ginaaw suba suñu soñon madame Badiane na ñew ci terrain sur le terrain ñu won ko ne ko mom mo fi ne tay mo fi ne suba mbax moy suñu yaay ñun ñi ñep te dinañ ko jappalé ba fu mu yem nak mu neex ñun duñ ko xaste duñ ko ngañ légui moy tu mais bi baa dañ koy laaj parce que gis nañu euh, consul bu France mhm. euh, Tamsir fay mhm. amon ay jafé jafé yeen ngeen di ay responsable politique waye tamit ay responsable de développement mhm. ngeen nek France di fa yëngu problème boobu est-ce que mën nga ñu cee laalal tuuti loo xamante ne dina mën a leeral xel nit man de problème boobu. depuis bi président Macky Sall créé APR ba léegi mu ngi nekk bàyyi Fallou président Macky Sall ba amagun sax un mois président Macky Sall la demoon dans le sud en France Tamsir fay li mu fa def ñëpp gis nañ ko Tamsir fay du ko tuuti nit ñi nañu bàyyi añaanante suñu biir. nañu bàyyi defante lu bon suñu biir Tamsir du nit ku mel noonu nit ku nekk nag am nga ni la yàlla bindee mais Tamsir loolu ñu ko tuddal foofu man de jusqu'à preuve du contraire nanguwuma ko ànduma ci kooku moom nanguwuma ko ànduma ci tey ànduma si ëllëg Tamsir du def loolu jusqu'à preuve du contraire nag ba ma teg samay bët ñu wan ma ay image yu leer ay preuve yu leer. waaw loolu dafa naan ba mandi génne ay bagages am di tuur ndox ci biir mbedd yi looloo waral ñu arrêté ko ba indi ay jafe-jafe te ñu bëri ñu ngi naan France ak ni ñu sophistiqué ci wàllu technologie. amul fenn ku ñu gis ay image wala vidéo mm-hmm. loolu jaaxal na ñu bëri est-ce que kon du coup bas politique. man je pense que c'est un coup bas politique kooku dafa am ñu koy xeex dafa am ñu añaan ñuy xeex Tamsir mais Tamsir du def loolu Tamsir xam naa Tamsir depuis le temps du PDS ñoo doon ànd ñoo doon politique andoo kon nag man bu ñu Tamsir def na loolu man je ne suis pas d'accord je demande ça. France France baal de France faut tourner dans chaque coin de rue il y a des caméras de surveillance te en tant que consul général de Marseille Tamsir du taxaw hein? Ah, muy représenter les institutions sénégalaises muy taxaw c'est mbedd day naan day def lu du noonu te affaire u naan bi nañ ko teg de côté fii ñu fiy tojukaas bëri na am na ci ñu feeñ nag am na ci ñu feeñul. bu ko dagg tegal makasi dégg nga ñiy toji kaas bëri na am na ci ñu feeñ am na ci ñu feeñul mais nañu bàyyi añaan nañu bàyyi soxorante bi Tamsir li muy def moom rek moo ko mën a def dans le sud maa ngi remercier nag sunu consul général de Paris Diallo Bové muy Mamadou jàllo Amadou Diallo dégg nga sunu cordinateur général de la l'APR comme Demba Sow moom it maa ngi koy jox mention spéciale ndax bu président ñëwee muy guddi muy bëccëg du sonn du taxaw lu nekk ma ngi koy def pour def ay mobilisation pour mobilisation yu réussir waaw nañu bàyyi nag soxorante suñu biir bu leen neexee tey ñu ne Adja Deme def na li wala def na li bu leen neexee tey ñu ni kii def na li wala def na li nañu bàyyi affaire soxorante yi nañu liggéey ñu jéem a avancé

parce que Marème Faye Sall mësuñu am jigéen bi nga xam ne sénégalaise la à cent pour cent mu nekk biir palais mësuñu am jigéenu présidente bi nga xam ne mi ngi sillonné dans tous le Sénégal muy murid yeeg Touba yeeg kii Tijaan yeeg ak xaadir euh, yeeg ñaseen yeeg partout fu ñu dem fekk fu Marème fay Sall kenn du ko jox benn étiquette ne Marème Faye Sall bi diine la bi tarixa la nekk mm-hmm. kooku Sénégal yëpp ñoo ko seede bitim réew yi ñëpp ñoo ko seede Marème fay sàll li muy def dañuy ñaan yàlla yàlla lafal ka cat yàlla gën ko yéegee ci kaw li mu jàpp li mu continué ko te li ma si gën a neex rek président boo waxee moom mu ne man Marème ma ma dooleel loolu rek doy na sax loolu ku mu doyul dara du la doy kon nag jigéen bu nekk na nga jéem a roy ci Marème fay Sall foofu bu ma paree foofu damay ñëw si madame Badiane parce que madame Badiane démb la te du tey comme ni ñuy waxee madam Badiane yaayu Macky la madam Badiane yaayu yenn certaines personnes yi nekk ci parti APR la man loolu dama koy dëggal invité wa euh, defoon nañu fi kii parrain bi le président Macky Sall soirée soleil levant xaw mille 2011 la woon xaw ma mm, mm. mille 2012 fàtte naa année bi daal 2011 la woon ñun ñi wa ties ñoo mobiliser dem and ak madame badian dem wuy ju soirée madam bobu madame badian kenn xamone won le la président madam dana nek président madame badian lu mu mënoon mang kay def lu mu mënoon yit mang kay def pour djema sagal président Sall kon nak tey jii bu démé ba président Macky tok madame badian ñu def ko présidente des femmes de la paix ah kon yenn yi nañ ko bàyyi ndax ku tabaxul ndax du ko toj waru ko toj parce que madame badiane yalla moko fi tek makki moko fi tek nañu nangu lolu ñu baña wedd yalla yàlla nañu bu yalla tal sanni sa matta rek nga romba dem sa yoon mais nga baña jël naan da ngay jël siwo ndox di si kepp lolu ay añaan la ay soxor la yoy nañ ka bayyi nañu liggéey jàppale président jàppale madame badiane ak ministre yi mu tek ñu jàppale leen ministre yit nañu delloo ci seen xel ñu xam ni ñu nekk ci gannaaw muy région yi sous région yi les zones rural nañu xam ni ñooñu ñoo tax ñu teg leen kuñ ci woo na nga wuyu kuñ ci wax dara lii problème bi am na fii na ngeen wuyu ndax président Macky Sall daf leen teg pour le peuple tegu leen pour seen bopp tegu leen pour seeni ay mbokk pour le peuple moo tax mu teg leen kon na ngeen liggéeyal peuple bi pour ëllëg ak si biir le lendemain des élections de 2017 pour ñu bañ a am défaite.